na kam de waxi mag dem nan dañ taali yaakar tas na yow sa yaakar bu bu ko téla tas bu téla tas sa yaakaar tabaski bi ñew na de tabaski bi ñew na waye waye waye tamit digënté xacc ak door yu yalla xaj na ca waye li de la mali Thiandoum nan nan dimas waaw waaw waaw <laughs> nar na metti de aljuma le 31 jot na ba pare la wax luma ko loolu la li xew. li xew fan. lah, ngaala. lah lu ko jot. xar ya Mana? nañu. mu ne ñaari xar ya ma yoroon si buntu këram di di di jaay affaire noobal ak yooyu ak yooyu Da daa yeewu suba rek ñaari xar yëpp a dee. alhamdulilah. waaw ay waay jërëjëfe yàlla. ñu <laughs> nag moom a yem. yoratul xar. yoratul kon daal léegi kiif kiif. kiif. nattoo ko dal te ni ma koy ñaanal nag mooy lu mu lijjanti yàlla mu sotti ci diggante bi amiin yàlla na yàlla bloqué léppam amiin amiin amiin zahiran wa baatinan nag laa ko koy ñaanal ndax ndax gis nga yàlla nii lay def nit bul am dara yaakaar ne yow kott la ko yàlla jagle mi ngi nii yàlla rey na xaram ya xar ya dee ñu dee nañ dese de nañ nañ wow koog moom daa daa yeew daal xar yi ko def nii dojam bi kañ la dojo xaram yi kañ la leen di do ni tam xarit la xarit yi musical di jema kan xaar ni leen ana tam xarit way yalla ya mo ni miw ay ma kontan kontaan waay wa waaw mais ñun amu sama xol bi féex na nag am malgré que sa ma sax waaye sama xol féex na kon est ce que tabaski dina am yo am nga ya, yaakaar dina am sa waay tabaski du am ñu nan ay boko amul amal beye amal amal ay ay ay ginaar ginaar ay tabaski mo dul am man am nga yaakaar ni tabaski du am waaw yow diggante xàcc ak dóor yu yalla xañ na ci de wax man yaakaar tas na xolal assalamu alaykum dul wa samay bay dama leen nuyu boy xexu njaago du jeex man da jamm ma bindi samay bay xolal fuma toge ma ngi miine gis nga gis nga légalise jënd na jaasi bu bes tak légaliser na ko def ma sori rek boy xexu njaago du jeex man de jàmm ma fi indi booy Aporos yow bi léegi tey ngay xam ni booy yow doo baat. booy li ngay wax nga ne dëgg la ci yow. lu leer laa ni wax li may wax dafa doon dëgg moo tax ma ñëw wax leen ko bu ma yitul woon du ma dagg sama yite ñëw fii di wax ak yéen. booy xeexu njaago bi jeex na. billaay samay baay coow indi ma fi dara indi ma fi jàmm rek ma fi indi. eh revenez ñëwal ñëwal. revenez kaay kaay kaay. waay baay sa gaaw a daw gi tàppee nga torop. looy ragal. kii kii dañoo gën a band yow. boy, Boy, boy, boy dañoo gën jam band. man kamil yàllaay Boy naa. waaw yow booy. boo indee jàmm jàmm jaa ngi fii nga wala ngaan boo indee seytaane nag. Assane Diouf a ngi fi. Cissé Lo ngi fi. yaay xool bu la bi def defaruñu ngalax. waaw tabaski bi na. mais nu ngeen fa ñëwee neexuma ma yéene leen samay xar rek loolu rek ma fi indi du leneen nag coow indi ma fi dara indi ma fi. waaw ah, booy dogal suuf waay ban xar nga ñu yéene. au nom du père et du fils et du saint esprit li mu leen wax dëgg la. Eh, non loolu waat la dëgg la. jéesi na ko jéesi na ko. alléluia na ko. booy loolu mauvaise nouvelle la de. loolu rek ma fi indi du leneen nag leneen indi ma fi loolu rek. booy. Eh, booy. Eh, Aliou indi ma xar yi. allahu akbar. yàlla fu ne lay fëlee. Aliou indi ma xar yi. yow booy bi gëm nga ko. xool xar yaa ngoog. booy booy booy bàyyi sa duul yi. waaw ban duul xar yaa ngi nii. waaw li kii day duul mën nañoo may xar nii nii nii. waaw waaw ko ba pare. booy tey laa lay wan loo musul gis. lenn xam naa ko. booy kontaan naa ci yow damaa bëgg a simeeku wan la sama sama awra yi rek ko defee. nga kontan na xamni man kontaan na awra yor nga kay wat. samay awra way da ko jar. na bu ko dama koy teral. nëbbu nga du tuuti di. awra yi bu ko rek. nga du tuuti boy kan du guru ko ngoon la samay awra parce que bég na ci yow de. oh. boy lo ñu mës def tay kontaan na ci yow. ndago fi gën lu lu yàlla sàkk. te xolam eh. ñoo fa gën te ci yoon sax gis nga julli di ñoo wara bayyi jaay xar parce que dañoo soxor. lu soxor soxor mu a weesu. xar muy jar vingt nga bëgg koo jaayee cent te ñii ci maye xar xam nga ne moos kuy maye xar du du jël xar yi di ko seeral. dëgg la gis nga chrétien yi. jaago yi ñoom rek ñoo war a def opération la non ñoom àjjana ñoom ñoo fa moom. lan ñoom ñoo fa moom àjjana. loolu kay jarul wax. joor moom yéene ko moom. xam nga ne kii lim def nii kii lim def nii fi mu ne nii. xoolal xar yi yii te xar yi nga xam ne benn bu ci nekk. waaw lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt cent cent nangam mille de laal na ko. mais deux cent fukk fukk juróom fukk. waaw xam nga ne lii xeeb na ko. booy vraiment. booy booy booy kaay ma woon sama awra waay yow it. waaw ah, booy booy kaay rek xoolal loolu lépp teraanga la rek pour wax la ne ni lii lii ñaari nit doon a gis muy ba oh. kaay. seexoo faalo ginaar ba nen na ma jël bii maa ma jël bii nga jël bii mo ñaari benn la sax waaw waaye bàyyi ma jël bii rek ay mbir la bii bàyyi ma jël bii yow nga jël bii waaw waaw bu weex ba ya ko waxoon waaw jëlal bi parce que yow bu ñuul nga nga gentul man ma gent sama bu wex waaw mais dafa nang xari nang nag kenn xamul ban couleur la nak waaye mais bul indi problème maag sama bu wex ya. tam ñu dem jékki saa indaat yeneen day am tup tup yu ñuul yi mom bu la nexé nga jël waaye man bi jox mako yow ya lolu nga gis waaw bi ci ëpp li wex li dal jox mako rek xam nga ni ci bo amul kuy lan nga war ray bo amul kuy war nga ray xar mu jigen mo amul xar bu jigen nga ray beuy bo amul beuy nga ray ginar bo amul ganar nga ray ci ay lapin ak yooyu yëpp sax yëpp yaa xam lapin da nga rey lapin yooyu am moom ay ala kulaa di nga tabax si moom non ren moom tabaski li nga def dafa rëy te ku def lu rëy di nga am lu rëy waaw waaw te tubaab nee la teraanga c'est payé par la teraanga kon teraanga teraanga rek koy faj waaw kay foog ñu yëngatu yëngatul dañ laa dañ laa denc surprise déglu Eh, du boobu du boobu waale ay da tor waale play rek yow xaaral rek fii laa soxla woon waaw kay <laughs> waaw kay basket ko dama koy basket do goy ah bu la neex nga jaar la ko fii ay mais jum yaa ngay basket de mais jum xola ay waay booy gis nga ndigg bi maa ngi la koy jox ah jëla jëla jëla ah <laughs> basket basket basket ko basket ko mo basket na ko dugal jël le tatum xar bi la ay waay bam bam bam jël ay jël jël ay jël ay ay hmm. ah. yëngalal ya, sa ndigg bi toj tuuti des yow lan la da nga am problème dëgg xanaa waaw fekk mu naa dëgg na ngoot gum Wata mamak de. Bumak yoy. Mamak de. Bumak. Koy ma. Ay mag lañ. Ala sonu nañ nak. Legi jox ñu xaar. Boy. Jëla jëla jëla. Boy billahi. Boy. Boy kontan nañ ci yow. Bar bar bar. Waaw kay ni la ko genté won. Nga gent pobar. Man ma gent mew mew ma. Jëro jëro Boy. Fo ñu rombati nokkuñu. Jëro jëf. Ale. Bis kita ki tay la la fo ñu rombati bu nu bal nokkuñu dégg nga. Mbër waay merci Alain. waay dama si am na de. Alain boo gis am na de.